Sonko ni Macky Sall ku ci mën a yàq sa morom da nga koy yàq kenn ku nekk muy yëkkati ay kàddu yu doy war di ko teg ci sa kaw morom journal bi loolee moo tax mu ne ñaar ñi maanaam jamono ji adversité wàllum politique doxul seen diggante waaye nag ak noonoo la yéen kaay gi délibération xëy yóbbu ñu diwaanu Mbàkke nee na manifestation bi nga xam ne ñenn ñu doon ñu ko amal ma ji ñu génn ba ñu teg fa loxo lu toll si juróom benn fukk ak juróom benn démb ñoo ngi woon ca tribunalub lu toll si fukk si ñoom jël nañu leen yóbbu nañ leen sa kaso ba maanaam mandat nañ leen dépôt li nga xam ne moo ci des tey ji ñoom ñoom la xam fan la ñuy mujjee ak ñoom journal bi nee na ñi nga xam ne nag ay mineur lañu maanaam xale yi tout tànk yi ak élèves yi nga xam ne jàppoon nañu leen ñooñee bàyyi nañu leen journal bi di las xëy duñu xibaar naan ñu en tout am ba desal ñi nga xam ne jàpp nañu leen fan yi ñu génn ca diwaanu seen dossier bi diisal nañu ko gànn ndax dañu ko mujjee criminalisé journal bi di Vox Populi nee na en tout cas li am ba desal mandat dépôt gi jamono ji ma ngi rek di leen di dugal ci ñoo xam ne yóbbu nañ leen ca kaso am na ñaar ñoo xam ne yóbbu nañu leen sa kaso ba tey jii tamit am na ñeneen ñoo xam ne soo moytuwulee kaso la ñu jëm yéen kaay gi di réew ko di ci ñaar ñoo xam ne fanaan nañ seen guddi gu njëkk ci kaso bi di Hannibal Jim ak Daouda Kaloga journal bi nee na ñaar ñi mandat nañ leen dépôt li ñu leen di tuumal nag maanaam woote ci lu jëm ci wàllum waaye tamit jël ay financement ci activité yoo xam ne mën naa dugal njomb ci réew mi kañ fitna yéen kaay gi di wal fajri nee na ñi nga xam ne démb mandat nañ leen dépôt seen dossier dañu ko boole ci force spéciale yi yéen kaay gi di ko di ñu koy fekk fa Guy Marius Sagna nee na mandat dépôt gi jamono ji ci Sénégal ma ngi mel ni tulleeg male maanaam détenu politique na loola te nag loolee dañu koy ñaawloo Guy Marius bi mooy wax ndax nee ko xayma lu toll ci téeméer ak fukk ak ñett ñoo xam ne dugal nañ leen ci kasu bi loolee bëri na lool Asra Fall journal bi nee na li ñu koy toppee lu jëm dafa yëkkati kàddu yu ñàkk war ma teg ko ci Macky Sall beneen bi tamit nee ñu dafa amoon bëgg-bëgg tal ab gendarmerie loole la koy toppee yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Aminata Touré plateforme plateforme jàmm gën troisième mandat Aminata Touré nee na ñoom dinañu wër kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp waxtaan ak ñoom ndax moom Mimi Touré nee na ñetteelu mandat loolee baaxul ci réew mi te mën naa andi giraawaali ci réew mi journal bi du l'Observateur ñu xëy fekk fa Mamadou Diop Decroix moom nag nee na Sénégal bu duggee ci kawo Macky Sall mooy ñàkk waaye tamit Ousmane Sonko maanaam mënu cee gagné yéen a kaay gii di source ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko journal bi nee na ajuma ji ñu génn Ousmane Sonko bi mu ñëwee ci entrée Touba Mbacké gaa yi téye ko dafa ñaaj daal di jàll waaye nag loolee li xalif général des Baye Fall moo ko waxoon na ko demal ca liggéey yi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi joxo ngir na nga daal fay barkeelu loole moo tax Ousmane Sonko bëggoon a jëfee loole moo tax bi ko gaa dafa daal ñaaj daal di jàll bi di Source A mooy xëy di wax ñu fekk fa sëriñ Fallou Fall nee na Ousmane mooy politicien bi njëkk ñëw ci liggéey yi nga xam ne ñoom Baye Fall yi koy liggéey te sëriñ bi liggéey loo ko waaye nag moo a coalition diisoo moom nag nee na Macky Sall wërta déglu ñi nga xam ne maanaam ñoo koy duggaloo ci musibaat journal bi di bés bi nee na tey ji la ñaar fukki at ak juróom-ñeent ginnaaw bi ñu rayee juróom benn policier ci réewum Sénégal yéen kaay gii di leen fo xëy di ñu xibaar naan ñu waa Benno Bokk Yaakaar jamono jii ñoom jéngu nañu ndax démb janoon nañu taskatu xabaar yi ñoom nee nañu duñu bàyyi kenn di indi ak pëccoxoo ci réew mi te ko fi nar a def ñoom danañu ko diggaale ak yow yéen kaay gii di le quotidien yor yora duñu xibaar naan ñu ci langue politique gi ci Sénégal jamono ji Ousmane Sonko amu ci morom maanaam amu ci di concurrence bi di le quotidien yor yoon muy xëy di wax te nee na benn at rek moo des ci élection présidentielle 2024 ndax nee na muy Thiès di Touba Mbacké Ziguinchor bëri na ci réew mi foo xam ne kenn mënu ko fa méngale ak kenn yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas Macky Sall ak ñi mu àndal li ñu bëgg waxu ko wala ñenn si ñoom jot nañu ko wax ndax am na ñoo xam ne ñoo ngi lancé ay pétition ci lu jëm ci ñetteelu candidature Macky Sall am ñoo xam ne nee nañu Macky Sall moo nekk seen candidat ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bi di Walf Fadjri nee na en tout cas gars li nga xam ne moom la ñuy ruumandaata mooy bëgg a jël Macky Sall sampaat ko 2024 yéen kaay ga ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee bu ñu waxantee dëgg Macky Sall dafa lajj échec dëgg la Macky Sall def te li nga xam ne moom lañ doon xaar ci Macky Sall defu ci tous yéen kaay gi de la Tribune Mamadou Lamine Diallo nee na ci fukki at yi Macky Sall leb na lu toll ci onze mille cinq cent milliards bor bi nga xam ne Sénégal amee na ko jamono ji jéggi na dayoo journal bi di 24 heures ñu xëy fekkaat fa Mamadou Lamine Diallo nee na ci campagne waaye nag occasion la ngir mu fay ñi nga xam ne ay chômeur lañu dix mille dix ngir nag mën leen a transporter ngir ñoom ñu mën a amal seeni xumbute waaye ñaari junni la ñoom Macky Sall di joxe ngir nag nit ñi man leen a wuy si yéen kaay gii de Les Échos xëy ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr daat nañ wax ne avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag ginnaaw bi ñu jëlee dossier bi jël ko yóbbu ko chambre criminelle ñoom nag dañoo clamé woon mbir mi ca kanam mu chambre d'accusation waaye nag ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la ci waa chambre d'accusation di yëy si lañ siy jël ab dogal waaye nag avocat yi Ousmane Sonko yi bëgguñu mu sedd ndax ñoom jamono